Sowa sa waay. sa yaay juraat. sa yaay juraat.

Hawaii. Alil ñu ñëw fekk fi le vainqueur de Bour Sine le vainqueur de Tyson Guinguinéo le vainqueur de Mbaye Tine tey ñu ñëw fekk ko fi le vainqueur de Bébé Modou Lo Zé nuyu naa la. Idi fay sant ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yeneen di gërëm suñuy waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar àll ba ñaax montagne ba bés nuyu. dina fay baax a léegi sa combat nga génn si gisatuñu Zé la. waaw bilaahi damaa xawoon am blessure nag dama xawoon sama dama xawoon amee blessure doon ci entraîné xaw cee gaañuwaat quoi mooy loolu noonu gars yi ne ma noo bul defasi dara fajul ba wér quoi. yee. tey ñu sa rak nga bàyyi li nga jàppoon yëpp ñëw. ñun famille lañ. buuba amee xewle kenn la si man ndax ñu rend contact man su ma bëggaan jàppante bu neex buuba laay ñëw. barki Seydina Mohamed. ndaanaan la xale bu nangoo entraînement la macha allah yàlla suñu borom dénk na ko kattan gu am solo. di ko ñaanal rek yàlla suturaal ko defal ko ndam ndax mooñ ñu tax a jug tey. xale bi moom Abou Ndiassé numéro 2. bàyyi ma ko xel noonu nag mais ñun xam nañ ki ñu ki ñu yor ki ñu yor ñun xam nañ ko te yaakaar naa ni nit ki bu sa xel dalee ci li nga yor doo waali yaani ci leneen waaw. bii di première sortie ni premier grand combat am wàccaay bi. pare na sama xel dal na ci moom donte doonuñu woon ànd entraînement mais xam naa ne liggéeykat la te xale bu nangoo liggéey ñàkkul dara ci làmb te gis naa ko. lii ma doon gis ci moom yokk na bu baax baax di ñaan rek yàlla na ko suñu borom suturaal defal ko ndam lu gën ci moom. général fu mu ne. maa suma roxu ak sama waa écurie waa benn baraag mboolo ak samay xarit waa ma mafia bi yëmbal benn baraag buun Kër Masar ak mafia bi yëpp daal. boobu ba léegi dégg ñu beneen fu général xasaam gisoo ma ni may stressé xoolal sama kanam gi xam nga ne man firiwu ma. ñàkk a bëree barki alxuraan gënaluñu ndax ñun non gars ñuy woo mais par rapport yi ñu doon proposé am na ay yi ñuy proposé gars yi ñu ngi discuter mais saa bu ñu ñun pare nañ pour làmb ndax làmb mooy suñu métier di. comme ñan lay doon. bëri na gars yaa ngi fi mais mënu ma cee wax. làmb dañoo bëgg sa diggante ak rek làmb ko bëgg. noo la mel Belende moom bokkagul sama yoon quoi. champion la mën na maa sax gën a baax palmarès mais maa ngi moom bokkaguñ yoon. yoon ah, dara xam nga làmb léegi affaire la yoon la. dangay cité ay yoo xam ne xam ne ñii ñoo say adversaire am ñoo xam ne mooy loolu noonu comprendre nga fi may waxee yow mi sax ba idi boo yoroon say mbër di nga leen utal say yoon bu ñu a jaar am déet lamb yoon la mënoo bëreeg say morom yëpp quoi. waxu général dafa bëgg ay magam may ko sens. waaw foofu laa ko quoi ndax prouvé naa ci lamb lu ma gars yi. ci kaw comme ñan la. gars yi Sa Thiès Reug Reug bàyyi fi. à bu ñu la waxee nga ne Sa Thiès Reug Reug. ñoom laa teg sama bët barki alxuraanul karim. laale woon ngeen. waaye xoolal amul laale ak ñaaxal laale ñoom ñaar ñëpp laa wax fa laa teg sama bët. billaay wallaay wa taalaay duñ dërëm. ay mbër lañ comme ñun. waaw yàlla suñu borom doole sutura rek. jeex na tax ku ma ci laam booleel pare naa. barke yàlla. jaajëf ziar naa la. nee na maa ngi ziar. naa tey ziar Idi da ko waar. waaw ñu ngi sant yàlla rek di jëli si. waaw yaa ngi si dara. ga non ñu ngi sant yàlla rek temps yii moom ñu ngi suñu entraînement xam nga ñu ngi toog di gàkkatu nekk suñu gox xam nga di entraîné waaw di def. ñu jógee jigéen dama caat yoo bële daal dafa daw dem delluwaat delluwaat fi mu mëninam. waaw non xam nga rek ñun moom wax dëgg yàlla lamb ji passé xam nga rek ni mu demee ko quoi mais nag sant yàlla noonu la mënoon demee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax fàtte nañ ko ñu ngi waat suñu geneen ñu ngi ne ko yàgg defal nañu ñu am combat ñu nag dara le 18 mars bii nii xam nga loolu soriwul ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax te daanaka nañ wax dëgg yàgg bis bi rek ñuy xaar le 18 rek ñuy xaar ñu ñëw wane suñu bopp bu soobee yàgg. dafa génn stade Yoff jëlaat lu métti. waaw ñun ñun ñun kenn xamee ñu ay ay combat yomb wax dëgg yàlla man sama naataangoo rek laay jël jàpp naa ne Fodou sama naataangoo rek dox nañ combat bi staff bi d'accord nañ ñu jël ko te dañuy bëre bu soobee yàgg te naa ko duma naa ko daan duma Fodous a Fodous taay bi moom. waaw Fodous non Fodous amul benn taay. wóorul dara ay taay ak yooyu yëpp du dara en tout cas li am solo mooy nga 18 mars bi incha allah Fodous boo ko sifee génn suñu diggante naa ko dumata naa ko dar loolu moom. waaw xeexal Fodous. bu baax a man may xawee Fodous mag si nga xam jeexal na ma pare. mag daa teel a bëri du mag. non non non non Fodous mag la ñun ay xale lañ ay armée yow ay armée yi sax moo njëkk a bëri kon ñun bu ñu ba dab ko di bëri moom sant ñu day xarga gañ li ñu war si làmb ji mooy dem entraîné ba taxaw ñëw arbitre sifflé ñu dox si kawam duma ko daan ko te loolu ñuy def. ñu dox si kawam duma la. non Farouz mag la man xarga laa man li war laay def te lenn dafa sama war mooy dox si kawam duma ko daan ko loolu moo ma war. dama fas bu baax a bu baax sax. dama ko xeexee. war na yàlla bu xeexee dama koy duma loolu bu baax loolu amul sax dañuy bëre dañuy xeex dañuy bëre làmb ji moom bu soobee yàlla dinañ xeex dinañ bëre bu dawee xeex bi sax du si mucc force damay xeex ak moom. barki yàlla du si mucc force dañuy xeex. Farouz biir gars yi wagaa dina xam ne maa ngi dégg na ngay waxam parce que tey dem def face à face gis nekk di def. mag non mag bu toll moom nekk foofu di xam nga saaga di def yi yoo xamante ni yooyu yoo xamante ni man maa ko waroon def xam nga mais nag sant yàlla moom day wane ne que ne rek moom wérul yaa moom mais nag dinaa ko faj bu mu wér. dinaa ko faj bu mu wér bu soobee yàlla yow yal nañu yàgg defal jàmm bëgg 18 incha allah bañ li ma ko yóbbante mooy yal na ko yàgg defal jàmm defal ma jàmm ba bis ba incha allah bi yàlla may ma ndam si kawam bu soobee bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko Thank you. ñu ngi leen di ziarat bu baax a baax di leen jox seen waay bu wér di nuyuwaat kulum ñu fi nekk rek di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey ñu ñëw fii benn baraak fekk fi xale fekk fi ndaanaan fekk fi champion mu jëm dimanche le 26 digganteem ak Abou Ndiassé numéro de Bouba nuyu naa la jërëjëf fay nañ la bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw guñ jullee si yàlla yeneen bi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Basiirou Kane ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu waa Thiès yëpp waa Mbaalen Medina Fall ñëpp maa leen di nuyu jëwrin Mor waaw léegi sonn suñu combat da si jàpp bu baax di nuyu Zoro waaw di nuyu suñu waa équipe di leen sant gërëm ñëpp waaw di nuyu ñu fi teew ñëpp maa leen di nuyu di sant buur day jàpp suñu combat da si sonn bu baax a baax a baax a baax waaw mais bu ndax xam nga fi xale bi nga dugg ndax xam nga si xale bi nga jël Abou Ndiassé numéro 2. non Abou Ndiassé xam naa ko xam naa fi ma dugg xam naa ko bu baax a baax Abou Ndiassé on wana a du dara du tus du dara. adversaire yi nga daan am adversaire bi bokkul de. bi ma am nag bi si gën a nooy eh. bi ma jàpp ni Abou Ndiassé ni bii kil la bii kil la su ma ko jàppee rek laa mujj jeex waaw. nga ne bii kil la. bii kil la. fan nga xam Abou Ndiassé dama ko xam. waaw ah, dafa am fu ngeen tase. xam maanaam dama ko siiwur dama ko xam bu baax waaw su ma ko jaabee laa mujj jeex. combat bi séntu nañ si ngeen xeex yéen ñaar xeex bu sax. Eh, dañuy bagaar luñ lépp laa indi. guerre laa jëm guerre damay xeex damay bëre waaw te bisu taxawee dëggal boppam ma door ko mu daanu. bu taxawee dëggal boppam. door ko mu daanu. waaw li ngay gëm la wala. wallaahi taxawee dëggal boppam laa mujj du mën minute. indi ma samay combat ñëpp seeraan nañ ko ñëpp xam nañ bu baax nu muy bëree bu baax su arbitre sifflé pipe moom day ñëw damay attaqué. Abou Ndiassé dem ko am xam na day attaqué kon nañu daje nañu ñu taxaw kon ñu daje ñu xeex xeex bu neex ba amateur yi kontaan promoteur yi kontaan supporter yi kontaan da ngeen bëgg a xeex ba soo ko bëre loolu laa bëgg ñu xeex ba pare lu tàng jër xeex lu ba gars ba supporter yi kontaan ma doog koo jàpp daan ko dégg nga li ma ne dafa bëgg xeex ak moom waaw booy bu baax Bouba avant tout jëm ci sa grand combat parce que combat spécial nga waroon bëre ci waroon bëre grand combat bi dafa blessé finalement yaa ngi war a bëre sa premier grand combat à l'arène nationale booy xool déjà sa diggante ak Abou Niasse numéro seeni parcours dafa similaire dafa am ay points xam ne dafa xaw niroo foofu noonu parce que booy seet Abou Niasse numéro benn défaite la mës am Malam Niane numéro 2 moo ko daan benn défaite maanaam am il faut da am ci yéen ñaar ku xajal moromam mu jàll da nga ne Abou Niasse Abou Niasse kii la man je suis pas d' accord Abou Niasse numéro 2 booy jàmm gën la. Abou Niasse may may ma jàll. non non pare wul pour may la nga ma jàll. pare wul pour xajal la nga jàll. ma teg sama bët Abou Niasse 2 moo may tee. bu baax da nga wóolu sa bëre mais Abou Niasse numéro 2 dafa a bëre. Abou Niasse on wana keus mu an waay fu na no do waa Guinée fop waa Tamba waa Kolda Ziguinchor na caal xay goro fop abu njaas o wana ko min ko pulo waaw d'accord sama gaay may leen ñu tuuti eh, Bouba Bouba Bouba wax naa ko sànq ah, Malika Malika dañ la yónni yàkkamti la boo gisee tey sa open press bi nga bindoo seet ni mu la daree ñëw taxaw sa wet général bu Malika ñëw def def benn benn passage génn yaa ngi may dégg ñoom si ta taxaw ñoom cargo bu Malika ñoom Mbës ñoom Aliou Fatfat ñëpp a ñëw taxaw pour lan pousser la à la victoire mais na la leer ne jour si dañu tëj barrière yi yow ak Abou Niassène numéro 2 ci biir bi yaa may looy jaay ci bëre na la leer ne Abou Niassène numéro 2 da ci am lu doy man loolu daf maa leer fan ngay jaar Abou Niassène bu arbitre mu ne la kaa ñu bëre lan ngay def Abou Niassène arbitre sifflé mu ne kaa ñu bëre ma jàngal ko bëre jour signature wax naa ko nee naa ko na dem jàngi bëre doole bërewut doole mën a bëre doole bërewut amu njaatu mënul bëre bu la ne kaa ñu bëre looy def suñu ne kaa ñu bëre ma jàngal ko bëre bu arbitre sifflé mu ne la kaa ñu xeex lan ngay def ñu duma ma duma ko daan ko xeex foo laa gën a mëne foo laa gën a mëne su ma ko jàpp ma koy duma est-ce que xam nga est-ce que xam nga victoire victoire ci Abou Niassène numéro 2 est-ce que xam nga fan la lay yóbbu maanaam yow nga bëree daan Abou Niassé numéro 2 est-ce que xam nga la lay yóbbu Abou Niassé numéro 2 fu ñu mën a yóbbu si làmb bari fu ñu a yóbbu bari na mooy yàlla ñu yàlla suturaal ba bis ba rek wala ñu ñaan yàlla ngeen nekk ñaari adversaire de taille ngeen nekk ñaari adversaire de taille ngeen nekk ñaari adversaire de taille combat ngeen bëre bëre bi tax ñuy wax waaw dañ bu neex su taxawee dëggal boppam dinañ bëre ba amateur yi kontaan idi dinañ bëre ba amateur yi kontaan laa la wax te làmb fu ma ko jàpp fu ma ko jàpp der yaram bi sax su ma ko jàppee dama koy daan jël der yaram bi bi ma ko li ñuy wax chaque jour rek li des bëreetul dimanche yàggatul sa tungule du teew ñu nataan Abou Ndiassé dimanche lu ma lay ñaan nga taxaw nga dëggal sa bopp Abou Ndiassé soo taxawee dëggal sa bopp Abou Ndiassé laa mujj du yàgg waa benn baraag dañ maa yónni yàqamti ma di laa wala dañ maa yónni yàqamti ma waa Malika talibu xongu caaro yi géejawaay waa carrière bàyyi ñu ñëpp ñëpp barki Seydina Mohamed dañ maa yónni yàqamti ma ndam rek lañ ma sas côté côté côté mobilisation combien sa téléphone bi côté mobilisation kuy bëreeg waa jàmm gën da nga ciy mustu parce que waa jàmm gën dañoo mën a mobiliser gis nga gis nga Siteu buy bëre li muy mobiliser gis nga Liss Ndiago buy bëre li muy mobiliser waa gën dañoo mën a supporter est-ce que jour may ma tuuti may ma tuuti est-ce que jour ji may may leen ma tuuti may leen ma tuuti may leen ma tuuti ñetti combat affaire bi ñetti combat la premier combat bi mooy mobilisation bataille mobili côté mobilisation boo mobiliser ñaari car yóbbu Abou Niasse numéro 2 mobiliser kaar foofu dalay daan un deuxièmement muy lan mën a fecc chorégraphie beneen combat la Abou Niasse numéro dafa mën a fecc dafa dégg galañ yaa may dégg foofu deuxième bataille la troisième bi nag mooy arbitre cible génn seen diggante avant tout première bataille bi mooy lan mobilisation pour lan promoteur bi nga mobiliser benn braak Malika Kër Massar booy Bouba génnee loo xam ne boo taxawee arène nationale ku xool xam ne booy bi kat mobilisé na. seen naa soo xoolee tey open presse bi nu mu demee nga xam na bu gën a Malika yi benn bras tel wu xonk jaara ñëpp pare nañ. macha allah gën a yëpp pare nga la ñuy xaar dimanche. ñu dem yàlla suturaal ñu ñëw indi ndam li. yoole ko yoole ko mu neex suñu bëree mu neex. ragaloo mu noyé la ci mobilisation. suñu duggee ma yëngale si wooteer yi ñëpp kontaan. gone yëpp pare nañ di laa wala woo di woo di woo ñoom woo waa Malika yëpp benn baraaj bala ngay wootee di woo général bu Malika bala ngay wootee woo si combat bi. bala ngay wootee armée armée bu benn baraaj ñu ngi lay woo si combat bi bulldozer bu Malika ñëpp ñoo ngi woo ñëpp. ci bala ngay woote est-ce que préparation bi jaar na yoon est-ce que sa préparation coach Mbel bulldozer ñoom cargo ñoom Aliou Fat Fat ñi nga nekkal sa écurie est-ce préparation bi jaar na yoon combat bi est sa xel dal na ci préparation bi. te soo xoolee waa écurie bi tey nu ñëwee nga xam ne combat pare nañ ko bu baax a baax a baax soo tourné gis Bulldozer gis Ounthia gis cargo gis Aliou Fat Fat mu ngi loo jaay perek gis boo yëpp si ginnaaw ñoom Siteu ñoom Mbaye Diouf ñoom Baye Zam nga xam ne kon lamb ji pare nañ a baax a waa Malika mbooloo yëpp pare nañ écurie bi yëpp côté bi est am nga la jàppale ay autorités yoo xam ne war nañ mën a jënd 3 blocs 4 blocs 5 blocs 10 blocs parce que ce grand combat la grand combat la boo duggee arène nationale foog ñu xam ne Bouba ñëw na yaa ngi may dégg côté mobilisation bi est ce que am nga ñu la jàppale ay autorités yu la jàppale ci ay blocs jàppale la ci ay car. mais waana Fallou tukku tukku tukku mu tànk rek sonn sama combat daf ñu jàpp bu baax a baax a baax a baax. lii mu gis ko waaw am na ñu siy jàpp am na ñu siy jàpp waaye gisaguma kenn sama combat boo ba léegi nag maa ngi maa ngi annoncé pour gars yi mun a ñëw ñun doomu benn baraag lañ tali bu Malika ñëpp ñun fi lañ bokk fi lañ juddoo fi lañ yaroo dañu dem ba toll fii si laam na ñoo war a mun di jàppale yokk ñu doole wool monsieur le maire yaa ci combat maa woo ñëpp du tur maa ngi woo ñëpp di wax buubaa pare na pour ñëpp képp ku ñëw jàppale ko rek di nga ko fekk fekk tali bu xonk fii nii ak mafia am waaw di dawalkatu sareet yi na ah dawalkatu sareet yi dañoo sonn sama combat dañ siy jàpp bu baax a baax a baax waa talibu xonk waa talibu xonk ko sóori dañuy jàpp sama combat bu baax a baax mbii fa ñi arekaar gaa dañu sonn sama combat mafia feeraay bi dañu sonn sama combat bu baax maa ngi leen di woo mafia feeraay bi ah rendez-vous dimanche ñëpp ñëw ah. waa carrière ah. waa carrière bi maa ngi leen di woo carrière bi ñu ñëpp ba jaxaay ba Tivaouane Peulh Kër Massar jaxaay bi waaw carrière ñëpp maa leen woo ci combat ba ah. ma fi rek kang kang day sonn suñu combat da ci jàpp bu baax a baax di woo Pape Fall ah Pape Fall ministre day sonn suñu bu baax a baax buur buur Seydou Thiat day jàpp suñu combat da ci jàpp da si sonn bu baax a baa waaw buur waaw di woo Ndiaga Ferrailleur nag Ndiaga Ndiaga Ferrailleur day jàpp suñu combat da ci sonn bu baax di woo Zungula ah Zungula ñëwal jàpp suñu combat ñun doomu benn dëkk bi lañ ah waaw di woo ñëpp di woo Serigne waaw di woo Serigne ñu wax ñëpp ñëw jàpp ci combat bi ñoom Ngora di woo ñëpp nag di woo waa Caaroy waa Caaroy di leen woo bu baax a baax ci combat bi ah. di sant sama ménageur nag ménageur sama ménageur Abdou Naar Abdou Naar rek sonn sama man waaw Naar ak Naar boulangerie maa ngi woo ñëw sama koñ Grand Fara waaw rek sonn sama combat da si jàpp bu baax a baax. loolu wax ci bulldozer un mot ci bulldozer lan nga wax ci bulldozer nekkoon ci yoon nekkoon ci yoon di représenté dignement Malika mais dernier combat bi dafa dem ñàkk digganteem ak caatu yoo instant bi mu jëlaat beneen risque Feurouz la jël un mois lan nga ci bulldozer non bi waay danaa mu ngi ci entraînement waaw mu ngi entraîné bu baax a baax di waaj di waaj Feurouz waaw di wax Feurouz bi gërëm su ñu ñëwaatee rek ñu xam ne ñëwaat nañ noonu la fa demee waaw instant ñu ngi si entraînement yu baax buñ ko suñ ko jàppee laamu di jeex waaw ñun ñu ngi bi. waaw loolu demee booy bi dañ koy ñaanal bi dañ koy ñaanal bi yor ko te bokk na si mbay doon équipe Malika am na si moom yaakaar waaw moom moo ma gën a yor xam nga ñun bokk na si booy yoo xamante ne xam nga équipe Malika Mboga am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax bu ko ñaanal nag yàlla may ko ndax bu baax a baax di woo gars yëpp ñu ñëpp ñoo génn jàppale booy bi booy champion la benn defar nga am suga ba te xam nga xagal ñu ngi soog a bëri premier grand combat ku ne am na grand combat dafa métti ñu ngi woo autorité yëpp ñëpp ñu nekk ci département Kër Massar yëpp Malika Ndiogu Sow monsieur le maire bu Malika waaw ñëpp ñu ngi leen di woo waa montagne waa Mbubës ñëpp ñu ngi leen di woo parce que combat bi waaw monsieur le maire Talla Gadiaga monsieur le maire Yeumbeul Sud parce que département bi yaa ngi te booy bi dimanche mooy moom mooy représenté département bi ñu ngi koy ñaanal may ko ndam sedd guy te yàlla ko may ndam incha allah ci yow lan bu baax waaw lamb di wax lamb lamb day jàpp sama bu baax lamb bu jóobeen da siy jàpp da siy sonn boo paree mu ma waa njóobeen bi njóobeen waaw di ko wax ne xoolal day baax maa ngi seen ginnaaw waaw woo si laamu ji ñoom Cheikh Laye bàyyi ñu kenn ku da ngay jum joxoo di la wax rendez-vous dimanche ah na ñëpp mobilisé wu ñu ñëw dem stade ñu yoole ko ba mu yoole bëre jàpp daan waaw di sant nag mbay jum mbay dollar rek sonn sama combat da ciy jàpp bu baax a baax ko ñaanal